billaahi wallaahi wa taalaax yaa nekk ci dëgg billaahi wallaahi wa taalaax yaa nekk ci dëgg kenn mësul a dégg nga weer kenn kenn mësul a dégg nga wax lenn kenn mësul a dégg su lu ñàkk fayda réseaux sociaux yi dañuy bind suba ba ngoon doo leen faale doo leen lijjanti yaa ngi dégg yaa ngi def li ngay def ànd pat réglé ak organisé parce que Seydouna Mohamed <coughs> dañoo ñàkk jom te chaque jour ñu nekk fii naan sama géer may na ma sama duul may na ma sama doxot may na ma yow de mun nga maa seedeel loolu Ndiaye xam nga ne man nit ñi dañuy xëy di wax suba ngoon ci man ma ne pat benn miir bi ma naan pat benn miir bi waaye yoral nit xaalisam lu mat un an weeru koor daal ba weeru koor ren di waaj jeex mu lay woo ko tey suba te heure boo xëyee toog si sama géer may na sama géer may na kenn nekk di signé ay contrat di lekk moom man man man man ma yor sax may toog ba six heures du matin di wax ak sinuwaay pour jënd ay bagage di nelaw ba ban heure ay deux heures de temps trois heures de temps laay nelaw dama am sax ay seer na ndax liggéey pour bañ ko ma yeb nga ne yow da ngay lekk sama xaalis après yow nga daal dem tëdd di wër di joxe ay don naan don plus vingt cinq mille xam wax ay waxi dof ñu teg ko fan fan lañ ko teg on est dans quel monde soo waree jënd ci mbaacoo da ngay ñëw lekk soo waree dem jënd feneen nga dem jënd ci kooku pour complexe man complexe wu ma kenn man faale ma kenn man sama bopp rek laa gëm parce que salaatul faatiha ñoom ñëpp may fay ba de A à Z ku ma ci yoral sama kaye bi Melissa yor nii danga may fay.